ñu naka des rek sam pap laaj ci naka la ñuy def daal ba ndar képp yëf yu ni mel ba fexe rek askan wi kenn ci ñoom dootul jooy bokk na ci nag laaj jamu samp ndegeen tey ji ah, naka la ñuy def ba tey ndaw yi fii nii rek bu fekkente ni amuñu lenn loo xamante ni mënees nañu leen ko jox ngir tere leen ñu daal di jël gàllu loo coy le waaye tamit nañ bàyyi rek li nga xamante ne nii moom mooy digge yu bëri yi nga xam ne amul la kenn koo xam ne daal la nga diggee da nga ko jëfee bokk na ci daal loo xam ne la tribune yéeni kaay jot na ko waxtaane mu mel ni nag ëllëguk ah, suñuy ndaw daanaka daal ci géej gi kott lay daal di yem bu ñu sukkandiku ci euh, la ñu cay wax jamono ji ponk boobu tam des na ci li ñuy waxtaanee jamono ji rek ca ëttuka Vox Populi yéenekaay mi nga xam ne xëy na jox kàddu gi Pierre Mboup mi nga xam ne bokk na nag ci kuréel gi ëmb mboolem nappkat yi ci réew ko Sénégal moom muy waxtaanee nag jamono ji rek ana lan mooy risque ko dugg géej jamono ji nga xamante ne daal seddaay bi métti na lool mu mel ni daal bu ñu koy xayma géej gi sedd na ngelaw na lool jamono ji ñu toll ba tax na bu ñuy xayma rek bi lekk ngelaw daanaka 65 jàpp 75 kilomètres la ba tax na ñoom ñoo ñi nga xam ne ña nga cay dem xam nañu daal ku ca dem doo yegg ñoom mooy mel ni daal la muy waxtaane moom mooy dañuy sëy rek di sacrifier yi lekk ndaw bokk na ci nag la nga xam ne tam mu ngi koy waxtaane mooy soxna yi cay faatu di ca jëli daal ay métital ak ndaw yi nga xam ne ñoom ñoom ñëpp ñoom ñooy des ci biir géej gi mu mel ni tam gaal gi suux na te askanu Sénégal yëpp la suuxal bu ñu koy xayma ca du ko critique yéeni kaay tey jii ni jàppale nag ni yéeni la muy waxtaane bokk na ci lii nga xam ne daal moom mooy matuwaay yu ñuy ci jël waaye tamit koppar yu takk yi nga xam ne ñu ngi ko ci def ca terewul ba léegi ndaw yi ñoom ñu nga bëgg rek wëri seenu pa ëllëg ca biti mu mel ni jamono ji dara mën a silo na téye waaye daal loole critique yéeni kaay nee na dafa mel ni daal la politique yoo xam ne daal jaarul yoon la wala bokk politique gu échec ci wàllu ko ndaw yi ak euh, laam laam bi nga xam ne daal ñu ngi koy def wala boog mbiru ko làmbatu boo xam ne daal fës na ci euh, nañu koy defee wutali réew mi yéenekaay ak coowal université Cheikh Anta Diop bu Dakar mu mel ni daal jamono ji crise ba ma ngay wéy ci daara ju kawe jooje jàpp leen daal ne eh, ñi nga xam ne daal ñoom ñooy ndongo ya ñoom dogu nañ ak seeni professeur ngir daal di dellu soir waaye dafa mel ni daal conseil académique ba moom ne na eh, furaas la mu jàpp du ko bàyyi benn yoon na le regard yéenekaay moom ci cooloole nee na UCAD noppi na rek bañ furaas lank ndaare rek tëdd ne du déconnecté wu benn yoon jamono ji eh, mooy njeexitalu activité pédagogique yi nga xam ne ñoo nga fa loole euh, ca biir université boobee ngir nag atum 2022 jàpp 2023 coono rek loo xamante ne ni daañu ko yeggale ci mbiru ko distance bu ñu sukkandikoo suñu naataangoo mel ni nag jamono ji ndongo yi bëgguñoo dégg lu ni mel ca boru ko université loole tax na tam le quotidien le quotidien ah, di ca dellu si daal di ñu xamal nag ni ngir ah, njeexitalu ko année universitaire bi le conseil académique ba moom beneenu ko plan la daal di valider SAES jamono ji di ah, dajale ay section léegi ni ëllëg mu mel ni ab reprise virtuelle la bu ñu koy xayma enquête yi ni kaay moom lëndëm na cruise nañu askanuk Sénégal tam ci loole suñu dëkk mel ni daal coupure kuran yi dellu si nañ bu baax a baax rek ci li nga xamante ne ni moom mooy ci euh, dëkk bi délestage yi nekk nañ nag loo xamante ne nii fii ci biir Dakar ñu ngi koy dund bu baax a baax entreprise ba di waxtaanee daal ay coupure ponctuelle yoo xamante ni daal lay koy tax a jóg bokk na ci euh, gën a saafara yëf yi jamono ji nga xam ne ñoom askan wi ñu ngi jooy ni mel alerte yi ne kaay nañu njiitu réew Macky Sall sol na dàllam wutali na nag jamono ji rek ab euh, tournéem di fas yéene nag dem ca baruk gu Kaolack kafrin jàpp Fatick loolu nag dina ko amal diggante fukki fan ak ñett jàpp fukki fan ak juróom-ñett. ñett ci weeru novembre bi ñu nekk njiital euh, réew mi jàpp leen ni jamono jàll tournée économique bi bëgg na ci naka def ab conseil présidentiel boo xamante ne ni daa ji euh, tekk ay visite ak inauguration yoo xamante ne ni am na ko ci euh, bépp gox bu mu fas yéene jaara suñu jantub réew xëyaatam ci mbiru ko njiitu réew Macky Sall ak sommet yi nga xam ne daal ñu ngi ko bëgg a amal ca France àdduna wërngal képp rawatina ca mbiru ko Palestine moom njiitu réew Macky Sall nag ca Paris ak Riyad ñu ko fay xaarandi bu baax a baax record yi ni kaay des ak ñun jamono ji ci coowal Ligue Europa Ismaïla Sarr lakk na caax ya ndege ni démb Marseille am ndam ñaari bal ci dara Iliman Ndiaye tam fasaloon ci taxawaayam bu baax a baax wàllub làmb jàppale nag ne Modou Lo Ama Baldé daañu lenn ci altine gi sunu lomb yéen kaay xëy ak ñun tey ji ci mbiru ko Eumeu Sène mi nga xam ne daal tontu na tafaatin bu baax a baax moom Eumeu Sène borom nga nag ne na ragalul lenn ci tafaatin te amul lenn loo xam ne daal mu nga koy xayma ci ponkalum bawol mi li nga xamante ne daal daanaka. moom mooy tëcc mbër yi ci saaku yi ndax loxo bu di say ca li mooy lu tiine kaay xëy fësal ci bésub tey jii nii merci beaucoup Grégoire ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax mbokk yi di leen ñaanal ngeen jàngat ko ci kaw jàmm ak salaam ñu joxante dig daje ba kañ. léegi léegi Aïcha. léegi léegi ñu jaajëfal ko si kanam tuuti dina yéeg daal di ñuy fekk si fii ci plateau bi ah, bu ko defee rek ñu dalal suñu gan mais en attendant.